wa assalamu alaykum mbokk internet yu Diego parle foot nuyu naa leen ziar len di wax kep ko xamantene ne gan nga ci chaîne bi te abonné go ñoo lay ñaan rek nga abonné té activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal di nga bokk ci ñokay koy ji su di like di commenter ko partager loolu ngeen ñu mëna jappalé bu baax baax euh, aujourd'hui on va parler de Sofiane Diop euh, bi nga xamantene actuellement ni mën nañoo wax que ne mi ngi door li nga xamantene moy pré-saison bi diko ko diko di ko bu baax baax et man li ci dolé diko waxat rek encore une fois moy que Ali Cissé daf ko wara wa hein, ngir gëna renforcer équipe nationale bu Sénégal ngir gëna renforcer li nga xamante moy milieu de terrain bi gëna am profondeur du banc surtout ci euh, côté offensif, offensif bi donc euh, parce que suñu Diop c'est un joueur bo xamante ci animation offensive équipe du Sénégal dinañ ci apporter lu bari bari dinañ ci yokal lu bari bari kon c'est un élément clé ci avenir du Sénégal fu Sénégal jëm ak fi nga xamantene mom lañu wara à jëm muy Coupe d'Afrique des Nations 2024 kon Sofiane Diop c'est un jour bo xamantene ci c'est un jour bu essentiel la ci list prochaine bu ADCC ci suñu match amical bi ñu war a amal euh, ci diggante ñoon ak Algérie ci mois de septembre bi ñu jëm ñu war ko amal fii ci stade maître ab Wade et je pense que ne bokk na ci éléments yi nga xamante ne Aliou Cissé war naa compter ci moom ngir avenir équipe bu Sénégal également de même que Boubakary Soumaré et tout donc lii la ñu leen andi loon di la wax di like di commenter jaa ngeen jëf. Ah,